catalan yi lii moom xam naa ni bu ngeen ko yégee non mais seen xol yi dina jeex ba damay ragal ngeen jël billet dem ba Espagne xeex ak seen i dirigeants yi merengue moom dinañ leen ci kaañ quoi ci jëmm ji di Alvarez daa am lu jotoon a xew ci digganteem ak Barça non loolu man mii sax sama xol da cee jeex salaamaaleykum amateur de foot nuyu nañ leen ko ci nekk seen tur ak seen sant mu ngi noonee gars comme ni ma leen ko annoncé tey xibaar Euh, mercato ci 13 euh, juillet 2023 wàllu tàggat yaram football gën cee fees balaa maa ñëw ci Alvarez lan la baax saa dund ak moom ak li nga xam ne nar na met seen xol yéen catalan yi te mere ngay nar cee jubilé maa ngi ciy ñëw mais dama leen jox ba léegi xibaar mercato euh, joueurs yi nga xam ne jot nañoo jóge ci club dem ci club ak ñiy waaj dem ak ñi nga xam ne seen transfert dafa mel ni lu waaj a échec kooku di Pulisic dama leen leeral que ni c'est officiel rejoindre na AC Milan xam ne Chelsea la jógee ci 22 millions d'euros ci lañ déggoo ci kàddu yooyu kooku di Lionel Messi programme yi ñëpp a ngi koy laaj yàggatul dara incha allah au plus tard suba la ginnaaw suba incha allah dina dem signé foofu ñu officialiser ko waaye dimanche dañ koy présenté foofee ci stade Miami mi moo tax proster yeeg lépp gars yi préparé nañ ko bu baax a baax mu ngi noonu ñu ngi koy waajal kii di Moreno nga xam ne ne nag leeraloon nañ leen Rodrigo Moreno leeraloon nañ dafay dem ci club boobee di Al Rayyan nekk foofee ca Qatar finalement si officiel mujj naa rejoindre club boobee gone googee di Rodrigo du mag nag waaye xam naa ne xaalis da favoriser keneen ki nga xam ne dem na ci dëkkub naar nag mais Turquie la foofee ca euh, Europe kii di Angelino leeraloon nañ dafay jóge Leipzig dem fële ca Galatasaray mujj na faa dem si officiel signé fa contrat boo xam ne nii euh, mën naa ni 1,5 euh, million d'euros option. option bi la option d'achat mu ngi noonee waaye di leen leeral que ni jamono ji clause libératoire am 1,5 million d'euros ci clause libératoire moom la kii di Galatasaray déclenché. actuellement bi mu yore jamono ji six millions d'euros la waaye salaire u deux virgule trois millions lay laal chaque année kookee di André Linho l'espagnol bi nekkoon foofee ca Manchester City kookee di nag euh, William moom nag Nottingham Forest mu ngi teg pressing ba léegi ngir war koo mën a foqati jël ko indi ko ci clubam euh, mu ngi noonu waaye club Arabie Saoudite ñoom it ñu ngi teg ay pas ngir war koo mën a jënd ñu ngi xaar nag fan lay mujjee kookee di euh, William Onana nag ak Manchester United Inter jege nañ ci wàllum accord li ci des bëreetul cinquante millions d'euros plus cinq millions d'euros bonus mën naa yi mbiri léegi mu leer nañ ngeen gis foofee Orana ca Manchester United peut-être suba ginnaaw suba wala ginnaawaat suba daal lépp leer nañ kii di jaabi nag nekk français bi nga xam ne moo nekk euh, fa la fa bëgg kii di Aston Villa nag teg na offre ngir war koo mën a jënd 35 millions d'euros waaye Leverkusen dafa bañ lànk ba suuf ne dañoo war a yokk prix bi lu ko may du fa jóge mu ngi jaabi daal wax na wii kookee di Aston Villa kon nag bu allah déwén kookee di jaabi euh, fa lay euh, football mu ngi noonee gars yi euh, di leen leeral que ni le joueur boobee nga xam ne moom laa leen wax Romain Fèvre da leen ne Bournemouth da koo bëggoon a jënd jënd na ko ba actuellement sax da koy Lorient Bournemouth nee na yàgg naa topp gone googu def ba mu nekk Brest gone gu am avenir la ku mën la muy def la actuellement nag jënd na ko ci quinze millions d'euros sans option sans bonus mu ngi noonee waaye finalement nag dafay nekk Lorient ba beneen année yi di ñëw incha mu ngi noonee gars yi euh, daanaka euh, loolu moo nekkoon xibaar gi ci yeneen yi à part kooku di Alvarez li dal Alvarez nag baax saak ñoom seen ba tax mere catalan yi nar cee mer mere ngay nar leen a kaañ ak ñoom seen. agent Alvarez moom moo génn di leeral que ni avant Alvarez mooy Manchester sit di ko jënd ñoom dañ ko proposé woon Barça ci vingt millions d'euros képp Barça lànk ba du ci suuf rëfule ko préféré dem jënd kan Ferran Torres bi nga xam ne <laughs> lu ko Barça yàqul rek lu ko Catalan yi yàqul rek doon koo fàtte dem jëndee yamaatuma foofu dem jëndee Ferran Torres ci 60 millions d'euros non mais dirigeant yooyu xam naa ni Catalan yi ñii liñ leen def métti na vraiment. c'est pas normal xoolal Alvarez jamono ji mu ngi toj te actuellement mu ngi jar lu tolloog ay soixante-dix millions d'euros jamono ji Real mu ngi ciy def kéem kàttanam pour war koo jënd mais City neen daf ko bëgg a blender mu toog foofu nag joueur la boo xam ne satisfaire na leen mu ngi noonee waaye Barça agent bi da ko proposé vingt millions d'euros pour Alvarez mu lànk ba tëdd suuf préfère dem jënd ji kooki di Ferran Torres ci soixante millions d'euros. ma leen di xaar ci commentaire nan ngeen ko gisee nag loolu vraiment mënoon na doon dara pour en cas Lewandowski mu ngi prendre âge bu fa jugee. moo war a doon ci attaquant d'avenir mais am ngeen Victor Roque jamono ji mais nag Alvarez da doon gën a neex mu ngi noonee gars yi képp koo xam nag abonné goo sama chaîne YouTube bi nga dem fa abonné activer cloche seetaan vidéo yi ba mu jeex loolu nga ñu mën a soutenir kon nag bu leen koy tàyyi s'il vous dem leen suñu YouTube ngeen abonné jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous jaajëf